fi musannan wakila an wasni faala wa wasni afaala wa in tuakid damir al muttasil bi nafsi wal ayni fa baada al munfasil anaytu darrafe wa akkadu bima siwahuma wal qaydu lan yultasama wa ma min at tawkid lafdiyun yaji mukarrarun ka qawli karbi maanaam musanna boo koy feddali hmm. baatu kilaa ngay jëfandikoo buy ñaari góor hmm. da jëfandikoo kilta buy ñaari jigéen hmm. du jar ngay jël ajmaho di ko tasniyaal naan ajmahaani du jar ngay jël jamaawo di ko tasniyaal naan jamaawaani jaatil xabilataani kiltahuma doy na jarul jamaawaani jaal jaysaani kilaahuma doy na jërul ajmaan mhm. moo tax wax na na doyloo bi kiltaa mhm. fii musannan ci feddali musanna mhm. an wasni faala awwalis tasniyal naktub faala awwali te mooy tasniyal jamaa jamaa awwali qabilataani kiltaahuma doy na jamaa wax ni na doyloo bi kilaa Hmm. fii musannan ci feddli musanna hmm. an was ni avanla wali tas ni yàlla na tub avanla bi hmm. su fekkee ñaari góor la kilaa doy na jarul ajmaani comme jaal jay saani ajma kilaahuma jarul ajmaani ni ki jaal jay saani kilaahuma wal qabilataani kiltahuma wala taqul ajmaani dafa teg ci kilaahuma wala doo waxi ne jamawaani jamaawaani mm-hmm. jamaawaani da mm-hmm. ko teg ci kitaabu ma mm-hmm. te la fan la xam ne jamaawaani lañu wax doyloo bi kilta fii musannan ci feddali musanna وكلا أكلا عن وزن فعلا ولقسم يالنت فعلا وزن أفعلا قسم يالنت أفعلا جمع أجمعين جو جمعين وإن تؤكد بوي فرد لي الضمير الضمير المتصل جاي متصل بارسا برمومي بارس أولا مقام مستتر لا ولا بارس لا waaye damir muttasil la mm-hmm. nga de ko feddalee bi nafsi mm-hmm. ci baatab nafsu mm-hmm. wal ayni wala nga de ko feddalee baatab aynu kon fa nang ko feddali baadal munfasil ci gannaaw munfasil wujuban ci lu ba damiri muttasil moo xam mustatir la moo xam baayis la soo ko bëgg a feddalee baatab nafsu mbaa baatab ayni da indi damiru لهم بوكان مانا دور أهل النفس دور إلي عيني حنيت جبلو نانك صرف بروم رفع سمنا دمير المتصل نك دمير المتصل رفع ماما تعالى léegi xum hmm. xam nga anta la nëbb muy bàyyira hmm. anta boobu nga bëgg koo feet nafsu hmm. da indi demel mun nga dëppoo demel mun nga ne xum anta Mm-hmm. wala xoomoo xam nga waawul jamaati bi damir rafaay muttasil la baris la mm-hmm. moom nga bëgg a feddle nafsu mm-hmm. mais indi antum nga ne antum anfusukum wala antum ayunukum wala qawli ant nafsuki wala ayun dégg nga is ngir law xiilat bu waxee foon ne hindun xarajat nafsuha wala ñu ne hindun xarajat aynuha hmm. suñu waxoon loolu hmm. dañoo yaakaar ne nafsu mooy faayele xaraja hmm. te kon hind génn hind xarajat génn na nafsa ba kanam waaye doone deena la te li nga ba wax mooy moom ci boppam moo génn rek boo ne hindu xarajat haynuha dañoo yaakaar ne haynu mooy faayele xaraja muy hind xarajat génn haynuha bëtam Mm-hmm. moo di gisatu bi mm-hmm. kon ñàkka a baamu damir mun fasil bi day indi lënt mm-hmm. moo tax soo bëgg a feddalee naf na hindun xarajat ya nafsuha wala hindun xarajat ya aynuha damir mun fasil bi ci la ñoo xamee ne nafsu tawkiil na aynu tawkiil la duut maay waaye boo ne hindu xarajat nafsuha wala hindu xarajat aynuha laa waxamat kon mu def la albasira te gis mm-hmm. kon xaraja xayn waa mën nañu waxoon ne bët bi génn mm-hmm. te kon gisatul la mm-hmm. abit ruuxa xaraja nafsa mën nañu waxoon ne bakkan bi génn te kon dee na la boobu mela xenees xalal muhimi ci aji def la wu xëy roo barab bi ñu ragalul lënt dañ ko xen ci barab bi ragal lënt kay xum nafsuka boo sa warante it mën naa am wax wa damiru damiral bandal mansuubi ci gannaaw lu ñu nasab mhm. jaay suñ aji dagan la mu ne ndaxam nag damiri muttasili nasab day mhm. soo ko bëgg a feddali mhm. jaarle fi damiru munfasil dara nekku ci nga ne ka darabtuka iyaaka nafsuka wala anta booy feddalee a damir damir al muttasila jay muttasil bi nafsi ci baatam nafsu wal ayni wala baatam ayni mm-hmm. fa nanga ko feddali baada mun fasili ci gannaaw mun fasili mm-hmm. anay tuddul lu naa nag sa rafe borom ak rafa damiru mm-hmm. muttasili rafaana wa akkadoo fedd lee nañ nag damiru muttasil bi maa ci baatam tawkiid boo xam ne siwaahuma du nafsu du aynu wal qaydu te bi moom tënk bii layul tasam su fekkee damiri muttasili rafa moom ngay feddali waaye baatu tawkiid bi du naf su du aynu kon alfaslu bi damirin munfasili mën naa am xayu waaye kenn du waxati ne dafa wax ni ngi qaama alifu lisnayni boobu ngay feddale kila kon xëy qaama huma kilahuma dara newu ci waaye qaama kilahuma imam wala boog lu mel ni xaamu waawul jamaati boobu ngay fetlee kullu hmm. mën naa am xaamu hum kulluhum dara demu ci sax hmm. xaamu hum kulluhum min ayib hmm. moo tax walaw jia bi damiri laxasu ñe damir bu ndaw waaw kaddu fedd leene bi ma si bata tawkil boo xam ne si baabuma du naf su doxayi du waaw xëy na bi dayu tasam dëgg bu baax daf la waxoon ne tawkiid ñaar la ak tawkiidu lafdi mm-hmm. wa sa yaati mm-hmm. ak tawkiidul maanawi mm-hmm. wa maaluma alfaas maaluma yooyu ci lañu ñu nekkoon àggal nañ ci kon ñu dem ci tawkiidu lafdi mu ne wamaa li nga xam ne lafdi yun kojug baat la mi na tawkiid yi mi na mooy bokk ci tawkiid ya jiwoo dana mu dikk mu kaaran de lu ñu baamu bi lafdi yi ci baatam boo dégg ñu ne tawkilu lafz yi hmm. mooy na nga waxoon ngay waxaat hmm. benn baade ca ngay jaar hmm. wala baat yu bokk maanaam la nga waxoon ngay ka xawle ke ni ngi wax sa jënga ne demal udruj demal ak ajal jayri ajal waaw jayri wa fasluhu bi harfi atfin ajwadu su ko dee fi nga ko tuddee ak fi nga koy tuddaatee nga jaarle fi arafooti mm-hmm. mu ne ci lay gën a rafetee mm-hmm. ni ngi kallaa sawfa taalamuun mm-hmm. ñu da ko fetli war a waxaat kallaa sawfa taalamuun doxale ci diggante tawkiit bi ak mu akkat bi summa mu ne ci loolu lay gën a rafetee wa min tarkihi bokk na ci baxam hadiisu wallaahi mm-hmm. la axsu wanna mm-hmm. quraysan quraysan quraysa ñetti yoon la ko wax mm-hmm. wa quraysan summa quraysan summa quraysa salaasa marratin ñetti yoon wayajibu dana wat tarkuhu bàyyi xaraf woowu in aw bu def le wo a taxayuro su fekkee da ngaa jëfandikoo tawkiidu lafdu yi te diggante baat bu njëkk bi ak bu ñaareel bi boo fi jaarale xaraf mën nañ koo foog muy ñaar bokk bokkul hmm. kon na ngay bàyyi hmm. arab ba timi léegi darabahoo darabahum hmm. tey summa daraba dañoo yaakaar ne dóor ñaari yoon loolu moo tax kon du indi summa bi maa loo xam ne laf ne ñu baat la mu ne tawkiid bi bokk ci tawkiid te jiw dana mu dikk mu kaaran te lu ñu baamu te xawle ko ñu waxte nga ne kufru